salaamaaleykum suñu mbokk internautes yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo alors tey ñi ngi fii nga xamante ni moom mooy mbaaw ndax euh, xam ngeen ni mardi bële passé euh, am na benn gaal bi nga xamante ni dafa jóge woon fii ci euh, mbaaw di dem fi nga xamante ni mooy Bétendé ci dig digal bi nga xamante ni mooy côté Gambie bi ginnaaw gi nag ci retour bi la daal di gaal gi suuxee ci diggante fi nga xamante ni mooy Jifeer maanaam ci département bu Mbour commune bi nga xamante ni moom mooy Joal alors ñu ngi toog ki nga xamante ni moom mooy Séni Séni Pouy di capitaine bato bi nga xamante ni moo suuxoon comme ni ma ko waxee mais balaa ñu sori ci waxtaan bi dama koy nuyu bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi ñu ñëw ci waxtaan bi seeni maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw. alors Seyni mën nga ñu ñëwaatal tuuti ci mbir mi. waaw maa ngi sant yàlla bu wér waaw ndax dañu jóge fii presque lundi waaw biñ dembee lundi dem Joal finaani teeraat Joal après ñu tëmbaat dix heures foofu finaani ginnaaw jifir côté betente bi waaw suñ bi ba pare bay waññeeku si lañ jëlaw dàpp waaw si la gaal gi diig gaal gi fan la diige hmm, presque jëfeer la rek waaw presque jëfër la rek daanaka dem ngeen ba côté Gambie ba départ non egguñu sax Gambie egguñu Gambie ñaata euh, nit ñoo si ñàkk seen bakkan ñett ñett waaw trois personnes. Mm-hmm. ñett ñëpp ay Sénégalais lañ. waaw mm-hmm. ñoom fii lañ dëkk. waaw fii lañ dëkk. Mm-hmm. kenn rek moo dëkk Mboro. alors euh, nit ñi dañuy faral di wax tout le temps naan euh, mool yi saa su ne dañ leen di wax nii par exemple bu nga xamante ni climat bi baaxul ñu toog ñenn ñi nii yéen bi ngeen dem climat bi baaxul woon est-ce que loolu loo ci loo ciy wax. non climat bi baax na sax. waaw climat bi moom baax na ndax ñu ñi suñu grand ba la jàngal géej. waaw météo bu amee dañu koy annoncé si groupe whatsapp yi ñu yor duñ dem waaw. kon kii bi daf leen dab. waaw daf ñu dab waaw. Mm. fekk na liggéey nañ ba pare bay teer sa fii mm. waaw dañu dab. ñun Sénégal fii dem naan ñëpp moo ñu xam si dem géej. Mm. da parce que suñ pàpp dañ ñëw fekk mu koy def. ñun tamit ñu nekk ay xale mu teete ñu si. ba tey tamit ma ñëw waat ko si moom mii ñoo bokkoon gaal. parce que booy bi yàggul xajo ko di dem géej ñoo dem ba si biir ñu jox ko gaal pour mu dem géej. jàmbaar la gaynde la tolof tolof moo ñëw dafa liggéey woon pour andil waajuram ba tey tolof tolof dab ko si kon dañ jëlaat yëpp sant ko yàlla te Sénégal yëpp laa lay wax bokk nañoo ñun naxar bi partage nañ ko wax ñun yow kër gi boo xoolee ñëpp depuis soog bi mu amee ba léegi ñi ñaay dugg di génne duñ masawu kon daal sant yàlla daal lañ ko jàppee mhm. euh, yooyu maanaam si sa loxo la nekkoon ba yàlla def nga daal ngeen daal di koy ber mhm. moom muy wéy liggéey bi ban comportement la am si liggéey waaw comportement bi am mooy gën a ñëw indi koom-koom gën a ñëw indi jàmbaar ndax parce que mën nga nekka sa rakk tamit tey muy ñëw di naan di waaye moom dafa ñëw rek gëm liggéey gëm liggéey jariñ waajuram kon dafa liggéey woon daal ba lii fekk kafu waaw loolu daal lañ ci xam waaw alors mbir moomu nag xam naa du du guleet ndax saa su ne dañuy wax ni euh, saa dañuy annoncé ay ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ay mool yow lan nga jàpp ni mooy responsabilité ci état bi da nga jàpp ni état bi la wala nga jàpp ni yàlla rek mooy ñëw non non yàlla rek mooy ñëw waaw ndax ñun moom yàgg nañ dem géej waaw ndax moo yàq sa suñu jàng waaw moo yàq sa suñu jàng waaw te yàgg nañ ëpp façon jën bu nekk waaw xëy na yàlla moo dogal lii rek waaw. alors diggante bi ngeen di dem fi ngeen di jóge ak fi ngeen di dem souvent très souvent dafay sori ñenn jàpp ni soriwaay boobu noonu xëy Euh, bu licence de pêche yi nga xamante ni ñu ngi koy jàmmani dañ ko jaay tubaab yi moo tax euh, jën bi di manqué fii ba ngeen di dem ci yenn zone yi nga xamante ni amaana seen gaal yi ngeen yor warul egg ci yoon ci ci foofu loolu loo ci wax. non ñun suñu gaal yi mën na dem fu nekk. waaw suñu gaal yi mën dem fu nekk ndax Dakar fii moo gën a danger te suñu gaal yi dafay dem waaw lu jëm nag si wàllu état bi moom man moom dama si sori ndax tout tànk la waaw. ban message ngay lancé état bi tamit ñu gën leen jàppale si seen liggéey. waaw état bi moom li ñu koy lancé mooy wax dëgg mu ñëw jàppale waat mool yi rek comme lu mu fi mën a jàppale mool yoo xam ne dañu war a mën a avancé mu ñëw jàppale ñu waaye tamit ñun presque ñun mool yi daal lu ñu am rek ñoo ko amal suñu bopp mu noon cadre essence boo jënd essence da sonn saa saa dañ lay laaj lii saa saa dañ lay laaj lii mool yi daal ci coono liñ dëkk ci coono waaw zile yi moom yomb na waaw yomb na jafewul ndax parce que zile moom jafewul pour dem jël sa xaalis nga dem jënd ko moom jafewul loolu moom amul benn problème ñun mool yi moom ñun ñu ngi suñu saako jëlee yaa ngi fii ñun ñoo ko jëndal suñu bopp. waaw loolu moom jafewul. Mm-hmm. waaw mais est ñaax sa rakk yi parce que bu ñuy dem géej ñuy bañ a fàtte gilet yi aussi itam ñuy sóoraale météo li nga xamante ni moom lay digle saa ñu waree tëmb. xoolal li comme li ngay wax affaire de météo ñun côté Yoff bi la ñuy nappee. Mm-hmm. gis nga météo saa yu ñu ko déggee suñu gaal day seru fii duñ dem. ndax parce que ñun xam nañ li nga xam ne moom la ñu apporté météo li nga xam ne moom moom la ñuy ba ñun duñ am tolof tolof mm-hmm. moo tax duñ ko forcé comme ni mu la waxee rek moom bi muy dem sax loolu xalaatu ko woon déggu ko woon mm-hmm. dafa dem liggéey ba loolu dal ko si kawam man barki démb laa jógee foofu moom fi mu suuxee dem jëli gaal gi man maa demoon di wëri gaal gi ndax daf ne ñu gaal gi feeñ ñu dem fekk waxi kase dañuy wax rek parce que booy bi fi mu déggee boo xoolee xam ñaati mètre la 5 mètre xóotaay bi 5 mètre 5 mètre billaay banta boo ko fa sampee mu dal foofu lañ defee sox foofu la ñeen nañu wàññi ko xóotul yàlla foofu moo gën a xóot te xoolal foofu tolof tolof bi leen fa fekk kon yàlla moo ñu wax ay mbiram kon nañ ko teg si cadre yàlla alors euh, yombul nag ñoo nekk jeune ànd ak ay nit euh, ñu daan ñàkk seen bakkan yow yàlla def nga daal di mucc loolu yow depuis mardi ba léegi naka ngay dundee affaire bi wala sax image yi buy ñëwaat sa xel lan la lay jox. waaw métti waaw métti ndax xar sa bu jógee si yow day métti sakandoo laa doomu aadama waaw métti lool waaw métti na ma lool trop. waajur yi naka lañ koy dundee fii. waaw billaay métti rek métti rek dañ may xaw a dëfal sax mais xam naa ne métti na lool. ndax jot nga dem si ñeneen ñi jaale ji leen seeti seen famille yeeg yooyu ñi nga xamante ni dañ si ñàkk seen bakkan. non booba léegi nag génn ma. Mm-hmm. waaw booba léegi génn ma mm-hmm. waaw. mais yow bi nga yëgee xibaar bi nga xam ni sa rakk moom moo demoon mooy capitaine bateau bi bi nga yëgee rek dèjà xamoo moment boobu kan moo si ñàkk bakkan ba kan moo si dund naka nga ko dundee. waaw dund ko si cadre bu métti dama naan sama dund yëpp jour boobu moo ma gën a métti ndax manoo am rakk joo xam ne yéen a bokk ndey ak baay torof torof dal ko. noonu tolof tolof bu métti bu ma métti ndax dañ ne mbokk dafa fort te sa rakk oo la téléphone na la mag mu ne ah, mu ne dama def soog nga ne ko waa yow nga ko defee mu ne ma man de jàllo maa ngi suuxee jëfir ma ne ko jëfir mu ne waa ma ne ko booy mbaat kenn amu si problème mu ne ma ah am na ñetti booy yu si dee ma ko ma def mel ni piqûre lañ ma pour ma ñibbisi waat problème la léegi man am na benn booy bu ndaw bu bokk si ñun rakkaam si la bokk ma ne ko hélas mu ne ah, am na de mu ne ma ah ma ne ko si ni def ma woo ne ma léegi dafa def soog te nee na am na ñett ñu si rakk te booy bi may wax loolu rakkaam si la bokk mu doon booy bu gëm yàlla booy boo xam ne nii jur boobu deere na loo xam ne man mi ka mag sax deerew ma loolu booy boobu man daal jur boobu gis naa si moom gëm yàlla goo xam ne nii lu jafe la kon noonu lañ ko dundee lu métti sax lañ ko dundee lu métti mhm. xibaar bi lu métti lañ ko dundee waaw métti na trop fu métti di yem moom métti na mhm. kon bi quartier bi naka lañ koy dundee hmm. moo tax sama oyof ndax ñoom ñëpp bokk nañ caax man waaw ñoom ñëpp ñoom bokk nañ caax man ah, alors lan lan message ngay ngay lancé pour euh, soit autorité yi wala sa mbokk mool yi li ma la wax rek jooyu ma jooyu ma matériel jooyu ma dara waaw ndax maa ngi sant yàlla bu baax man daal ñett ñiy dem rek ñoom laa jooy mais paax dara man tamit mbaaw gi ma dëkk fii xale bi dëkk fii dañu leen di sant di leen gërëm petit mbaaw fii ñëpp ñoo ko bokk ñun muy grand mbaaw muy tëngéej muy barñi muy mbuur fu nekk doomu aadama ñëw na bokk ñun tiis bii man daal dama ñun maanaam li ñu yàlla dimbali ci tiis bii mooy président ñëw na sax amul lu ñu am ñun ndax tey ñëpp Sénégal yëpp ñëw nañ partagé ko ak ñun ay maire damay toog géej ñi toog ñu ne gaalu Ablaye bi moo def soog maire bi dox ñëw ba si man mu ne ma man xaw moon yéen yéen a def soog day jooy ba tëdd samay tànk mu doon dañ koy jëflanteex ñoom buñ jàppee jën fii ñëpp dañ leen di may ñun ñëpp ñoo koy bokk duñ lekk bàyyi kenn moo tax tamit ñëpp daal mujj na sedd si kaw ñii xam ne ñëw nañ bokk ñun tiis bi ndax nit ki am na tiis kenn ñëwul dund ko yow waaye sant yàlla sant yàlla suñuy waajur dañ doon jooy sa waaye ñun ñëw leen di mujjee defal yaay waaw ah, sant yàlla rek ndax suñuy waajur dañ doon am ay problème ñu ñëw ñooy yaay lii yëpp nañ ko teg ci cadre yàlla ndax parce que yàlla moo tudd lii ñun ay ndaw lañ sàcc ñu fenn ñu dañ daani woon doole rek gis nga tey jii buñ jógee waatee si tolof tolof ñu defar waatee tamit géej lañ am ñun suñu dépense bi ngay gis géej lañ koy amee amuñu beneen liggéey amuñu beneen métier man mi ngay gis ni école xawma si dara géej rek laa xam sama papa dama ko teel a pour suñu kër mën a am dara ñun dañuy fayit gëmuñu liggéey gis politique mu amee bi passé suñ kër gi duñ fi jóge muy samay rakka ñun ñëpp géej rek xam tey boo ñëwee si kër gi boo ma boo may laajte xam nga la ngay wax ana jàll la mu géej man awma feneen soxla liggéey rek pour andi samay waajur loolu rek laa gëm du ma sàcc du ma fet ñoom loolu laa leen yaree ñii xamuñu fen lu ñu dem liggéey rek ñëw moo tax ñun géej lañ xam xamuñu leneen jànguñu defuñu dara gis rek dem liggéey ñëw boo ñu buggee gis nii pour lee lii boo ñu fekkee mbaar ma foog nga ñuy fekk foog nga ñuy gisee alors xam ne du du yomb ah pour nga expliquer ñu un peu léegi boo ñu doon expliquer détail par détail da ngeen ñëw ba ci ban zone ak gaal bi naka ngeen sentiree nii ngelaw li mi ngi ñëw si yéen. waaw ndax ñun ndogu dañ dog ba pare rek commencé suñu liggéey léegi bi ñu liggéey presque vingt heures si lañ pare quoi bi ñu paree vingt heures pour Dakar pour Terse biñ bi pour Terse après maa jël sama GPS. di programme ndax daa am mbaal yu ñu daggoon quoi léegi pour sama grand bi bu départ Dakar ma jox ko GPS bi mu daw jàpp sama mbaal mi waaw léegi si lañ tourné rek après si la benn ul ñëw maasaale gaal gi bi ñuy asaat bay def rek beneen bi ñëw nag si la diigal gaal gi quoi. ñu ñëwee mu am doole. waaw daf ñu bett daf ñu bett. tamit Sénégal dangay suux ñu war a ñëw sotal yiir war a ñëw dimbali la war a ñëw wax wax ju rafet da ngay gis ay doomu aadama ñëw. mu ne xoolal foog bi am na seen i waajur seen i doom kenn ñàkku kenn kenn demul ñoom yeneen i jàmbur ñoo dem parce que loolu da ngay tàngal xol kooku di nga matériel bi des foofu noonu presque million millions cadre 7 millions moo fa des te ñun waxuñu matériel ñun ñu ngi wax bekken yi xam ne gisuñu leen loolu la ñuy jooy waaye ñun waxuñu waxi matériel bëgguñu sax gis matériel ndax parce que ñun bekken yi rek moo ñu intéressé woon doomu aadama buñ la dékkee micro ñu la waxal maasawul kooku coono maasawul kooku coono ndax kooku siini mii tey sama rakkal man damay toog di dégg nouvelle yoo xam ne am na boo yoo xam ne dañuy am problème moo doon fii si guddi gi di leen jëli sol baasam kon yàlla moo tudd si moom daa war a dem kon yàlla bu tuddoon si moom daa war a dem moom day dem kon ñu koy dégg si kër gi ay doomu aadama di ko wax man rafetlu wu ma ko nit bu amee naxar da nga koy bokk moom da nga koy bokk ak moom wax si wax ju rafet ndax parce que tey ji man bu mu ñëwoon nga dëkk ma nikoro nga ne ma waxal dam na naan kii demul géej mooy wax ndax moo xam li ko arrivé man lu ma si wax damaa neex féex waaw waroo jël micro di wax loo xam ne day ee fitna day ekki ay xol man loolu lu ma ñaawlu la te gis naa ko si Petit Mbao fi ay nit def ko kon loolu rafetlu ma ko. comme suñu bidon essence yi. si la suñu booy yi ko quoi ñun ñëpp si lañ yëg. waaw mais après nag dañ yàgg si ndox mi quoi. ndax vingt ba deux heures du matin. dañ yàgg si ndox mi. amoo leen possibilité pour woo waa Sarkour wala ñu. non boobu suñu téléphone yëpp tooy. Ah, affaire daf ñu bett quoi. Mhm. waaw daf ñu bett. daf leen daf leen bett. waaw mais est-ce que loolu yéen a ngi koy yaa ngi soo ko a dund dem ba ci diggu géej affaire bi jékki-jékki rek. Euh, pool bi explosé. waaw waaw uh-huh. mhm. maa ngi koy doog a dund quoi. ñoom ñëpp takkoon nañ ay gilet de sauvetage. waaw amoon nañ gilet. Mm. mais dangay toll foofu moment boo xam te ni xam nga ah ñun yëre yi ñuy sol. Mm. gilet bi mënul mënoo see liggéey. Ah, da lay xaw a zone. waaw kay waaw da lay zone. Mm. yàlla rek. yàlla rek du sama góor. yow maa ñoom ñoo soobandoo. presque man maa mujjee yéeg sax si gaal bi. waaw maa mu jëy ak si gaal bi. Mm-hmm. mais ñoom peut-être dañu manqué résistance wala expérience wala sinon yow daan si yàlla si wala yàlla rek moo ñëw. yàlla rek moo ñëw ndax ñoom ñoom ñëpp ay gaynde lañ mm-hmm. ñëpp ñoom ñëpp kenn ki moo mag mm-hmm. benn booy bu ndaw bi rek laa si mag mais ñoom ñoo si des yëpp ñoom ñoo mag waaw mais yàlla rek moo ñëw. metti rek waaw metti rek. ndax ñoom am na ay mots yu ñu la ay kàddu wala dara. waaw ay sëriñ Babacar si lañ doon tudd. waaw taal bi taalibe Seex lañ waaw ah, ñii di tudd baatu laa ilaaha illallaah ba déggatuma leen waaw uh-huh. waaw ndax kenn ki moom dafa jàng quoi mm, gaal gi sax moom la ñuy wax imaam bi waaw ñu bari dañuy wax naan souvent yéen ñi xam yeneen dem géej lu na ngeen di gis loolu noo koy expliquer ndax da ngeen gis ay affaire ay affaire yu leen di jommal wala ay affaire yu tudd seen tur te doo leen ko gis ak yooyu non man moom gisuma dara te tamit dégguma dara mm. waaw gisuma dara dégguma dara te tamit mos mosuma dem géej ba loolu arrivé ma waaw mais nii nii xam naa duñ la laaj ndax da ngay waat pour continuer ndax sa liggéey la mais ndax ban temps la nga war a durewaat pour nga continuer sa activité sinon est-ce que yomb ña nga doon àndal gisatoo leen nga war a xëy bëgg delluwaat sa liggéey. loolu yëpp sant yàlla ndax ñu ma siy ñaax bu baax. Mm-hmm. di ma encadré sama grand bële moom tamit gaal la yor a sama rakk bi ñoom gaal la lañ yor ñu ngi may encadré gis nga fi ñu leen fekk mm-hmm. bëgguñu ma bàyyi mu wéet benn yoon kon ñu ngi may si loolu bu baax. moo mm-hmm. ko bàyyi ndax sama métier la moom rek laa xam sama pap mool la samay mag mool aw ma lu dem géej waaw samay toog xoolaat rek bu baax après ba ma paree ma see delluwaat. waa surtout mystiquement parce que dañu naan géej dafa bëri ay ay mbóot daal boo amul gàllaaj boo sangatul baax lu ne mën na la si fekk. loolu mbir yàlla la waaw man moom loolu laa ko jàppee loolu mbir yàlla la waaw yàlla moom na ma si jàmbi kenn mënu si dara. Mm. Mm-hmm. alors lii nañ leen euh, indiloon fi nga xamante ni euh, moom mooy euh, mbaaw donc dégg na ko déggandoo donc jaru ñu si ñu siy jaaraat di jégalu nag mënu ñàkk parce que on est ay doomu aadama lañ ñoom suñuy frère lañ li ñuy yëg li ñuy yëg en tout cas di jox rendez-vous ci beneen jotaay merci beaucoup jaajëf